asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki téléspectateurs yi mbokki internautes yi fu ngeen mën nekk ci biir réew mi wala ci bitim réew nuyu nañ leen ziar leen bu baax a baax rafetluwaat bu baax a baax nag ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa ne nuyoo booboog ziar bi ñu jiital ci Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom ba siiru di xalif général des Mourides ñaanal ko mu gën fee yàgg lool te gën a wér ñaanal ko it mbooleem kilifa yi yëpp. mbokk yi tey talaata di juróom-ñetti fan ci mars 8 mars 2022 dëppook ñeenti fan ci baraxlu atu 1443 ginnaaw gàddaayu yonent bi salallaahu alayhi wa sallam ñoo ngi fii ci biir Jolof ci dëkk boo xamante ni wala daara joo xam ne ñu ngi ko dëppee xisnul abraar tur la woo xam ne mi ngi bàyyeekoo ci cheikh mu Muntaxa Mbàkke moom Serigne Bassirou xalifa général des Mourides jox ko Serigne Bassirou Mbàkke moom Serigne Abdou Khadir mu tuddee ko bërëb bi moom ay tool yoo xam ne moom la fi bëgg taxawal ba tax na tey ji mu woote woon ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe Mouride yi ak jëwrin yi ak cheikh yu bari ngir ñu ñëw ànd ak moom ci liggéey bi nga xam ne moom la bëgg amal ci bërëb bi mu jëm ci déjjati ëkk waajal bërëb bi ngir defar ko ba mu jëm ci li nga xam ne moom lañ ci bëgg a def muy ay tool loole nag di liggéey boo xam ne bu yaatoo yaatu la moo tax mboole matuwaay yi jël nañ ko depuis euh, Touba Mbacké lépp loo xam ne war na dem ci bërëb bi jël nañ ko mboolem jëwriñ yi nga xam ne it ñoom ñoo ŋànk liggéey bi kenn ku ci nekk matuwaay ba nga xam ne moom la wala pàcc ba nga xam ne moom lañ la dénk jël nga ci ay matuwaay yu am solo ngir taalibe yi mën a ñëw ci jàmm dellu ci jàmm liggéey bi nga xam ne moom la Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdou Khadir mi nga xam ne moo yor euh, kàddu yoonu murit woote ngir ñu mën koo matale te ni nga xam ne noonu la ko taalibe yi ak cheikh yi waxee liggéey bi ñëw nañ waaye duñ fi jóge mukk te li nga xam ne sëriñ bi moom la bëgg defuñ ko ko muy matele euh, liggéey bi kon mbokk yi fii ak Touba daanaka téeméeri kilomètre yu teg la lu takku nga xam ne distance bu yaatoo yaatu la euh, taalibe yi nag ñëw nañ ci ñëw gu takku ñëpp ngir ànd doon benn li nga xam ne ndigal la ñu jëfe ko ni nga xam ne noonu lañ xamee taalibe murid rek ndigal jëfee te duñu fi jógee mukk te liggéey bi matut kon mbokki téléspectateurs yi mbokki internautes yi fii ci tool yi nga xam ne mi ngi nekkee ci zone Jolof bi ci ginnaaw ranch de Dolly ci euh, bërëb bu ñu naan Thiel euh, donc euh, ci daara yi Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadir yi nga xam ne moom lañ dëppee Hisnul Abrar fi lañ fas yéenee Euh, amal li nga xamante ne moom moo di liggéey bi waaye nag di santaat bu baax a baax Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadir mi nga xam ne moo wootee liggéey bi ndax ni koy kilifa yi di waxee saa su ne képp koo xam ne dalaa woo ci liggéey liggéeyub Serigne Touba yow yaa ko war a wëlbatiku di ko fay kon dafa woo taalibe ci liggéey liggéeyub Serigne Touba ñu koy ñaanalaat bu baax a baax a baax mu gën fee yàgg moom it Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdoul Khadir te gën a wér lépp loo xam ne moom la yéene liggéeyal Serigne Touba maamam kattanal ko ba mën koo matale lépp mu ànd kooku mbokki taalibe yi kon mbokk yi ñu ànd ak yéen fii ci premier jour bi ni nga xam ne noonu lay taalibe yi accès ci euh, tool yi ni ñuy installé ni ñuy wàccee bagage yi waaye it ñu dugal leen nit ci biir tool yi xool ni nga xam ne noonu lañ tàmbalee liggéey bi mu jëm ci déjété yi ak yi kon mbokk yi ñu ànd ak yéen dugg ci biir tool yi akamta ya akam baaxi bi kawn ya sa fawsi bi ma qaaba min busraaka ya allah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 لخوت فلن أسي من منك يا الله الله لاسي لقط مغفرة معك يا برادي تعنك يا الله أجازك لاسي كلي لديك ريدا ولي سكرت جنبي أسه يا الله علي يلاسي أحليت لي أبدا بخير مكر ودين على التحيا الله أنا الكبير لاسي بانت كبارة لي خطفل لي قط منك كبي الأجر يا الله أتى الكبير الذي بارك بارته لخط منك كبي الأجر يا الله أتى الأسيس الذي وجاءت في أباد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 عن العداء والآسى والكد يا الله liggéeyub tool yi fii ci xisnul abraar bu Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdoul Khadre su weesoo taalibe nga xam ne dañu nekk ci liggéey bi jotaay murit lay doon ndax ngoon gu ne dañuy xel kafe gi di waxtaane sëriñ bi lépp di sant Serigne Touba bu baax a baax. tafsir ya Allah